Maulana Cheikh Mouhamed Amin Ibrahima Niass te suñu sëriñ suñu président Jamiat Ansaaru Diin Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass jottali ñu ko ñoo ngi woo mbooleem mbokk taalibe fu ñu mën a nekk ci ñu jëfee ndigal loolu te ndigal li mooy gàmmu jëppal bi nga xam ne te mooy gàmmu dakaar bi nga xam ne Baye moo ko sosoon mu war a am ñaar fukki fan ci weeru avril le 20 avril ñu ngi ñaan taalibe yépp loolu nekk seen taxawaay suñu participation ci dundal bés boobu jàng ay kaamil jàng ay salaatul faatihi jàng ay def ay ñaan lu ko mel ni rabbal ibaadi su ko defee ñu dajale loolu yépp def ko muy suñu hadiya ci Maulana Cheikh Ibrahim ñu ñaan ci yàlla yàlla fankal ñu bépp musiba ak balaa bu nekk ci réew mi ak ci réew jullit ñi ak ci àdduna bi yépp ndax yàlla mën na ko yàlla xëccal ñu bépp xéewal bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa loolu nag tax na ñu ngi leen di jox numéro bi nga xam ne képp ku jàng kaamil foo mën a nekk soo jokkee ak danañ ko note dajale ko bu si keroogee bésu le te mooy gàmmu jëppal xale sëriñ bi sëriñ bi defal ñu xatma bi ñaanal yàlla ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp suñu numéro mooy 77 296 43 24 incha allah dana yàlla may ñu dëgg ak topp defal ñu tawféex nangu ñu suñu yëngatu yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان